nga xam ne léegi nii moo xew. waaw dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw kër sëriñ Touba gi ci jumaa ji. Hmm. fekk fi garañee bi ni ko damaa soxla tóor ndox. yàlla dogal mu dugg ci biir nag jaar ci ginnaaw yéeg ci bâtiment bi nga xam ne waa Daaru Salaam yi ñoo ko defaraloon sëriñ bi foofu. Hmm. mu doon sàcc kilim yi daj daj kilim bi nga xam ne mooy saalu sëriñ bi ci biir daj itam beneen kilim bi nga xam ne mooy kilimu Seex Mamadou Mountakha bi nga xam ne. moom moom moo nekk ci ci néegam boobu yàlla dogal na nag euh, gis nañ ko ba jàpp ko mbooloo mi songoon nañ ko ngir xaw ko rey waaye sawe nañ ko ba yàlla dogal nañ police ci gaawaayam ak sapeur pompier yàlla dogal na waa ji teg nañ ko loxo mi ngi nii nii xam naa duma yi dafa metti ba ñu ngi ko yóbbu hôpitalu jànnatu commissaire taxaw na ci taxawaay bu am solo ndax yable na ka saasa bi mbir yi amee rek la tànk waa ba ba muy daataan génn bay daw rek jàpp nañ ko. Mhm. jébbal nañ ko police yu jànnatu ñoom ñu ngi ubbi ab lanket ci moom. Mhm. loolu mooy li nga xam ne moo xew léegi nii présentement. lan lan ngeen fekk ci loxo yi. lu ngeen lu ngeen fekk mu yor dara waaye xam naa ne daal. Mhm. enquête bi ñu ngi ci parce que enquête bu nekkee ci mbir dam da bàyyi enquête bi dox rek. lu police def na ci taxawaay bi mu ci war a def. ak waa sapeur a baax. lu mu sëñ Modou lu mu waaw ci kaw la ñu doon doon ko daaj xamuñu exactement lan la bëggoon. Hmm. lan la bëggoon. ok mais pour l'instant daal ok leer na. mag mag la wala xale. waaw war naa man a am 27 ans wala wala 30 ans et quelque ans. kooku xale la. pour le moment loolu rek la waaw euh, ñu ngi leen di gërëm a bu baax a baax. Hmm. jërëjëf am na solo. di jël ci xadd xaarim li mu doon wax noonu ci opération moto yi. Hmm. fan yi gis ngeen démb ak bërki démb police. ànd ak daayira xuddaamul xadim mhm. ngir lëkkaloo boo xam sëriñ bi ci digalu sëñ am sam sëñ Blaat ak sëñ Basiru Coro ak euh,